làkkoo nag doon loo xam ni li jóg mooy wa atimul xajja wal umrata lillah kese wa atimul xajja wal umrata lillah ñu fexe ba ki nga xam ni mi ngi jaay ki nga xam ni mi ngi jaay ki nga xam ni jox nañu ko quota ki nga xam ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay seet yaramu ujaaj bi ki nga xam ni ñawal maanaam képp ku ci yëngu lu mu cay def ak nit mu saf sàpp yàlla ca loolu lépp lu mu cay def mu yëg yàlla ci li may def ak kii ñëw ni wecc ma te yor seefaa te xamul riyaal bu safee yàlla ci yow doo xam ni xamul riyaal waaye di nga ko jox la mu moom ca yow liggéeyu ko COSAPO mooy fexe ba lépp lu ñuy yëngatu rek mu saf sàpp ak yàlla bu nuy wax ndax xale bi jàng na ko léegi alxajju ashurun maalumaat fa man farada fihinna alxajja fala rafata wala fusuqa wala jidaala fi lxajj maanaam yooyu nga xam ni moom la ñu wax ni kii aji waru ko ñu waajale ko ko ci dëkk bii bu safee yàlla booy bala ngay jóge Sénégal ngay yëg ne waroo mer waroo dagg sante waroo xuloo te loolu pour ñu am ko fu mu jaar saf-sàpp ak yàlla ndax li dul yàlla lu mu nekk da lay indil fitna waaye bu dee yàlla saf na ci yow lii sa problème yow ujaaj bi buñ la waajalee ndax ki lay waajal bu safee yàlla safal la yàlla la mu lay waajal boo dematee makka la ngay jooy du du lal du mat la du lekk gu yi du naaj wu tàng xam nga looy jooy damaa dem ba makka te dew ma ziyaare rawdu seyduna muhammad damaa dem ba makka te yóbbuwuñ ma arafaat damaa dem ba makka te defuma tawaaful ifaada maanaam loolu la ujaaj bi di jooy waaye du jooy ceeb bu neex a gun a xati parce que la wuti bu nu safee sàpp yàlla dañuy dépassé loolu loolu nag mooy yéene mooy taxawaayu kosaapo ngir bëgg ñëpp xam ni daal ak ponk la ci ponk diine juróomeelu ponk la juróomeelu ponk boobu ku am wér am kartan war nga ko defi loolu ci tënk mooy taxawaay ak yéene COSAPO ba li ñuy liggéey li ñu yéene mooy ujaaj buy demati suñu la nee ñaata lan mooy ña lan mooy ponki aj nga mën ñu ko wax bala ngay dem gannaaw bi loolu xewee nag ñu xam ne looloo ñu war ñu ni léegi am na lu xew lan moo xew mooy mbas mi 2020 demuñu màkk mbir mi daf ñu laal gis nga covid bi ñun ñii la laal docteur ñun ñii la laal xam nga lum ñu laale xam nga lum ñu laale mooy tiyaaba yu nu doon jëli te ñàkk ko wallahi du xaalis bi tiyaaba ja du doon am maanaam toog ba ñu doon toog ca raw du yonent bi te 2020 amuñu ko toog ba ñu daan toog arafa di wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu l mulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir covid bi tax defiwuñu ko ñuy jooy loolu 2020 première vague bi dem deuxième vague jóg ñu ni nag toogaay jeex na nag toogaay jeex na de ndax lii ñu gis bu ñu jógul taxaw du baax ku ne yaa ngi daan yëngatu ci sa région di yëngu ci wàllu euh, sensibilisation ku ne yaa ngay def waaye ñu ni communauté di xaj daanu jóg àndandoo ñun ñëpp bootu ci gannaaw ki ñu booleel muy délégué général mi nga xam ni wallahu shahidun ala ma naqul ñun tànn ñu délégué waaye bu lu ñu tànn loo woon délégué ñu tànn ko mu doon suñu délégué parce que li ñu ci namu mooy lu saf yàlla te yëg nañu ni bëgg na ni ànd naa ñun ci lu saf yàlla kon communauté di xaj bépp nag ñu jóg àndandoog moom ci jàppale président ci li mu taxaw di xeex mbas mi li président taxaw engagé wu def ko ci ay moyen yëpp ngir xeex mbas mi ànd ko ministre de la santé ndalawatuñu guddeeg bëccëg démb la ñu am at le 2 mars démb le 2 mars ñu am un ñu ne Covid bi loolu ñoom ñuy xeex ñun ñuy doomi Sénégal di yëngatu ci aj ñu jox ñu ci ñu ci liggéey ñu ni jaadu na si ñun ñu jóg taxaw xeex boobu ñu def ko. ministre la santé ànd na ak yéen ci mbir mi bi ñu jotee programme bi étudier ko. dañu xam ne partenariat taxaw na taxaw na ci bokk vision taxaw na ci mission bi ngeen décliné muy mission très noble ñu war a ànd ak yéen nag pour atteindre objectif bi mu fekk si waar yu ñu dénk rek kon da ngeen a ñëw rek jàpp ci liñ ñu dénk kon defe naa ànd bi dina mën a yomb comme niñ ko waxee. activités yu bëri taxaw na sama mag ndey yu ma ngi nii toog ci xam na li may wax ku ma sa tudd Nord Foire tudd conférence yi ren kenn dégg ko te loolu moo am si gox yëpp umra ak ak kenn dégg ko loolu moo am fépp pour nga voyage léegi sax vidéo conférence yi la ñu jël dematuñu fen kon xeex mu jóge fi ñun ñëpp la war

ndax dañu am benn facteur constant muy rassemblement te il faut ñu wax ak ñi koy def ñu am lu ñu digle seet ko saytu ko muy respect des mesures barrières ñu ngi ci gaa waaye it faut ñu gën ko renforce ndax étude yi wane na ni boo defee respect des mesures barrières port de masque obligatoire distanciation lavage des mains am nga protection à 40 mais doyou. donc si ko respecte a respecté ba maîtriser 40 pour ne ba pare wouti lenen. donc ngeen tàmbali won ci am vision wàcc ci cible bobu pour sensibiliser len ci lolu, ñu àndoon ci ak yéen Waye am dond bu bees dond bi moy lan vaccin la vaccination aujourd'hui depuis plus 40 ans 45 ans Sénégal xam na luy vaccination defe naa am nañu fukki jàngoro ak ñett yoo xam vaccination moo ñu si dimbale mën nañ ci citer rek la fa ñu xale yi mën nañ ci citer ŋas mën nañ ci citer yeneen ak yeneen yoo xam ni na mag yi fi njëkkoon tey vaccin moo ñu si génne kon bu ñu demee ba wuti vaccin indi ko Sénégal yàlla dimbale ko muy am ay doomi réew mi yu nekk ci sphère yu ne bu ñu leen nee tey am na ay doomi Sénégal yu nekk ci essor de production des vaccins dans le monde daf leen di jaaxal monde am na ñu am ay doomi Sénégal ay experts yu nekk ci suñu biir université yi fii ci biir Sénégal mën a ceytu ay documents di ko xool di ko wax ba ne vaccin bi baax na monde am na fi am sen domi réew yo xamné sen seen impôt moo leen jàngal ci biir université yi jox leen ay diplôme ñu waat dugg ci système bi wara a wara wax ñew ni nangu nañu ne li bax na nañ dem defi ko defe naa ni loolu am fi ñu am nak un président bu am une vision bu nangul expert yoy sen gëm-gëm may may may confirmer fii nii président de la république jëlagul ben décision ci mbass ni bu CNG bi jëlul ñan ñoy CNG CNG moy comité national de gestion de l'épidémie kooku yag na fi épidémie bu fi mësa a ñëw ñoy taxaw xeex ak moom faagaagal joxe stratégie joxe lutte bi ñu dem si ñooñu ñoo xool ne nañu appliquer les mesures barrières président ni acca lu muy àndal mu boole ko si comme état ñooñu ñoo xool tey ba ni ah fi ñu toll tembe nag suñu bëggee dellu ci suñuy politique suñuy activité suñu yëpp il faut na mu indi vaccin waaye objectif bi mooy fii yëg le 31 décembre képp ku bëgg a vacciné si réew mi di nga vacciné lu millions de doses ñing ngi koy xaar té ci réew mi la jëm gratuite pour le moment ñi ngi def politiques politique yo xamni dinañ fexé ba mu nekk fep chercher même partenariat public privé avec les officines privées pour voir nu ñu mën def ba ku lamb rek vaccin daj ko ndax bu ñu nëbbante fi aduna jëm dinañ jëm ba ku vacciné wul doto génn obligation lay doon ci yeneen réew yi comme tey ni antigrippe bi nekkee obligation booy dem màkk ndax fiñu jëmit gëm nañ ni ñun am nañ ci du technique rek kon ci ministère de la santé ci le gouvernement du Sénégal ñi ngi engagé wu ak yeen di jëm fii ñu jëm tey ñaan yàlla suñu mais sama xol ci fi général ak délégation générale adjoint ndax communauté du hajj bi nga xam ne dañu bëgg suñu borom nangul nu ko te defal nu ci barke gis nañu ni communauté du hajj boobu leen moom moo teew ni ko El Idrissa waxe soo tuddee aj tudd nga ñi dëkk Sénégal ñi julit ak ñi dul julit parce que même ñi nekkul julit nek ay citoyens sénégalais nek ay contribuables sénégalais une contribution ci budget au Sénégal dafay dugg ci budget au ministère de la santé te ministère de la santé moy saytu ak la mu laaj lépp wérgu yaramu alaaji yi ak adjaratu yi délégation générale bi nga xam mo wara encadrer yi tamit budget au Sénégal lay doxale te budget au Sénégal bobu les citoyens sénégalais bobu la nga xam du def na ci ab kon ñun ñëpp ak def ñu soxal mais mieux ki nga xam ne sa dëkkandoo la tudd Jean-Louis bëgg na nga dem ci jàmm dellu si ci jàmm bëggul nga am benn tolof tolof ci aj gi kon aj gi aju ñëpp la mais daf ci am ñoo xamante ni bi nag dañu tànn nekk ci ay acteurs de premier plan ñooñu tànn nekk ci ay acteurs de premier plan mooy ñii ñuy tuddee les voyagistes privés ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen wet ñooñu yi tamit ci ay kilifa salle bi wuyu si wu COSAPO COSAPO ni ko euh, euh, Idri elage Idrissa waxee mu nekk doom joo ni xëy na fekk na fi ay magam magam yooyee bu ñu ba kon loolu dafay neex dafay dal xel te daf ñuy bégloo a Hadj colonel mustapha john Abdoulaye Marega sunu euh, sunu frère Bamba Dramé Adja Oulimata Diong et Makhtar Diallo ñi ñep ak ñi nga xamné ñi mais beaucoup ci communauté du Hajj ñun ñi ngi di ci bi di ñaanal borom Sénégal bu yenn saa yi nuyoo bi day gudd yenn saa yi mu tàyyil loo nit ñi waaye aada ju rafet wàññiwul dara parce que nit jëmmam moo gën a kawe lu nekk sunu boroom a ko def wala xadd këram naa ba nii aadama la wax kon ki nga xamante ni jëmmam moo gën a kawe lu nekk mu jël jëmmam jooju lay indil la ko fekkeel la sa bis sama turandoo ju tedd jëm al amin yal na ko yàlla yërëm te yal na nu yàlla tas ci barkeem daf doon wax ni ku ko xébal bisam ya ko toy kon ku yëkëti jëmmam indil la ko boko séné séenee ko rek wañewul dara Mo tax yenn saa yi yu gudd ñi ngi gërëm bu baax suñu frère et ami imam Mbaye ñaw c'est un acteur pas du pèlerinage seulement mais c'est un acteur du Sénégal ci anam yépp ci wàllu politique ci wàllu diine ci wàllu diplomatie de l'ombre ci wàllu yeete imaam jërëjëf ci sa teewaay ak Mouhamed Jullit Kunta mbokk yi COSAPO El Hadj Idrissa da wax ci sa waxtaan lu am solo lool moom mooy da nga wax ni yow ñi nga àndal dangeen ngeen a bëgg aj gi saf-saf yàlla mbokk yi un mi ngi nii suñu borom subhanahu wa taala boole ñu ak men aw benn ci mbindeefam yi mbindeefam woo xamante ni ko soxna Umu waxee léegi xëy na moom it njuddu yees la moo tax mu tudd korona 19 xëy na waaye xeet wa mu bokk ñoo fi jiitu nit ci àdduna parce que virus yi ñoo ñu fi jiitu ñun ñii. waaye bii ñu yàlla booleel 2019 tar na taraay goo xamante ni li maa ngi ciy profité di ñaanal sunu mbokk yi dem ci Covid yëpp ci 2020 2021 ak ñi dem même ci lu dul Covid yàlla na fekk yërmande yàlla jiitu na leen foofa ñu jëm waaye li ci Idrissa wax dafa am solo lool ndax pour mu nekk luy saf borom bi subhanahu wa day fekk mu am dañ koy waajal ba pare mu am atum lëmba ngi ni àdduna bi ni tekk maa ngi jàng barki démb ci benn bataxal ñu ne Air France dafa am perte de 7 milliards d'euros xaw ma kooku bu ñu ko wàññi woon ci xaalisu CFA nu muy toll mais 7 milliards d'euros yo xamante ni perte na ko ren ndax Covid bi mom moko ko sabab maa ngi jàng ni njaayum oto yu bees yi en Europe dafa daanu de 20 ndax Covid bi ak yenen ak yenen ak yeneen bu les rew yooyu le kon ñun suñu rew waxe noppi comme ñun dañoo nekk ci at kan mo gën a ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci aj gi président de la république son excellence Macky Sall bi ñu ne bëreet nii ko soxna Umu waxee gis-gisam bu gudd bu xóot moo ko may mu ni lii di feeñ ci sunu kanam du am cong moo xamante ni cong mu yamamaay la waaye ab xare la dafa waxoon ni nous sommes en guerre xare la effectivement xare boobu lañ la mu laajoon lépp ci walu taxawaay ak wàllu jumtuwaay président de la république def ca la ko ca war woo ci doomu aadama yi ñu fekk si ko la communauté du hajj bokk nañu ci xare boobule parce que def nañu seen contribution de 16 millions de francs ci force covid boobule kooku tam dañ leen koy gërëmee conscience bi ñu am ni ci réew mi la ñu bokk li songu réew mi ñoom la njëkk a song du ñu seetaan ñeneen ñi di def te bokkuñu ci moo taxoon ñoom it ñu jël seen contribution dajale ko ba mu tolloog 16 millions ñu teg ko ci loxo ministre des finances mu boole ko ci force commune. président de la république aussi ci xam gi mu xam ni ñii ñooy ñi gën a impacté ministre du tourisme jël le benn cagnot dénk ko voyagiste privé yi pour jàppale leen ci impact bi nga xam ne noonu leen euh, euh, euh, Covid bi impacté kon mu mel ni l'état du Sénégal yëg na ni doomam yi nga xam ni ñoom ñoo yëngutu ci wàllu aj su dee am na kenn ku mbir mi impacté kenn qui leen ci mu leen ci président de la république ñu leen bi ci amul daaw ndax seen question xam naa ni maa ngi yokk sama ngërëm ci seen ngërëm ci mbokk journaliste yi parce que moom El Hadj Mansour radiyallahu taala anhu li mu doon wax ni lu kenn yëgul ak lu amul ñooyam kon bu ngeen wootee te kenn yëgu ko ngeen def li ngeen di def te kenn yëgu ko kon day mel ni amul te ñoom ñooy tax nit ñi yëg ko ba xam ni am na ña ca a topp topp ca kon ñu ngi leen di gërëm ñoom tamit ndax aj dina am mm. su dee dañuy waxal yàlla mooy xamuñ ci daal. daje nañu yàggul colonel maa ngi koy yeesalaat ngërëm ak nuyoo ak ISAP daje nañu bu yàggul ak ñoom wax leen ni leen li tax kenn déggul délégation mu wax ba nga ni mooy mënoo wax loo xamante ni ni xamoo ci dara te rumeur baax comme amuñu lenn loo xam ne xam nañ ko ci at gi ñu nekk di liggéey ak ministre bi ci li ñu war a liggéey

le projet de passeport vaccinal mi ci bureau yi kon ci at gi nañu xam ni ñaar dina ci am sur le protocole sanitaire vaccination dina ci bokk kon ñi bëgg a ak ñi bëgg yóbbuwaate ñi aji nañu bokk ci sensibilisation bi pour que nit ñi ñako ku nekk xam na ni aussi loolu Arabie Saoudite tëral nag visa yi dafa am lu yees ñu ci dugal muy biométrie ñoom ci seen bopp sax ñoo ni ñoo koy defaral seen bopp dinañu wax ban euh, euh, euh, cabinet lañ koy dénk bu jotee itamit ñi ci war a xam dinañ ko xam su dee nag ci wàllu organisation wu aj ji wax dëgg yàlla quota yeeg loolu yëpp dara leeragu ci déggoon nañ fi sax ñu ne waa Côte d'Ivoire dañ leen a yokkal quota

et que nous nous erreur même trouble en leur sein ce sont leurs propres mots donc yokkuñu quota wu kenn Nous ñu Nous avons Nous nañu neuf nous Nous defal nañ leen dix mille ci nous nous hein? deuxième chose jot nañu Niger comme Côte d'Ivoire nous ne ñu une ak ñun situation fa ñu nekkoon en 2020 la ñu nekk ba aucune information sur le pèlerinage bi ci y a un programme appelé sur la voie du Hajj programme Boblé Arabie Saoudite moo ko programme Boblé Amna et ay pays africains yu ci y ci information yi ñu am yi amandi Sénégal ci la ak Côte d'Ivoire ak yenen ñaari pays parce que ñeenti pays africains ñom ñoo ci bokk ci yan modalité ci yan forme ci yan format ken informé guñu nous ci pour ñu wax ci ak nit mais li am ba am le ministre ak équipe nos représent notre représentation diplomatique ñi ngi continuer di euh, nekk en relation avec les autorités saoudiennes et jusqu'à aujourd'hui les autorités saoudiennes ñom ñi ngi préparer seen à l'intérieur ba bolé ci sax ku bëgg a ku bëgg nek volontaire comme niñ koy défé ci aj gi il faut que nga vacciné wu donc le protocole vaccinal faaw mu bok ci ñom ci seen biir ñu ngi koy wax mais lu jëm ci ñi joggé ci biti di ñew waxaguñ ci dara mais c'est clair que dinañ vacciné wu kon ken xamagul aj gi ni muy tëddee ñaata lañuy yobbu kan ak lan bu amé incha allahu taala dinañ ko def bu ko defee président de la république de am lu mu en 2020 nañu arrêté toute forme d'enrôlement de pèlerins loolu Manan sax a été ñëwagul Manan kooku moom kenn saxala ko euh, ak kenn abrogé gu ko nañu nekke woon nañu ni nekkee bu kenn jël xaalisu pèlerin bu kenn enregistré ren da nga xam ñaata quota nga am est-ce que 10 nga am est-ce que 20 nga am est-ce que 25 nga am donc bu kenn jël xaalisu pèlerin bu kenn enrôler benn pèlerin lu war a am bu jotee l'État du Sénégal est assez outillé quelle que soit l'urgence pour li war a am incha allah mu taxawee ko mu am ni mu war a amee lii laa ni woon naa ko teg ci kàddu yi nga xam ne kilifa wax nañ ko soxna Umu ak El Idrissa di gërëm teewaayu ñëpp kilifa yeeg sunu collaborateur yi di gërëm presse bi di li ni li ñu war ñun ñëpp mooy xet li sunu bopp xet li sunu mbokk te sunu mbokk mooy sunu bopp ngeen baal ma ma wax benn baat Sénégal neexu la waxee waaye dama koo yëg rek ma wax ko ngeen baal ma na yëg-yëg la suma benn njaboot daf ma wax ni ma vaccin yi dafa ñëw au ñu jox ko ñi ko soxla ñu jox ko autorité yi ñu ñànkoo ko lii ma wax léegi rek loolu laa is samiatu muuhu laa ko njëkk a wax beneen bi mën ko deux cent mille vaccins mais on n'a pas deux cent mille autorités dans ce pays 200 000 vaccins ñu wane fukki autorité yu ñuy pour ñu nek exemple pour l'exemplarité loola ñu tawil ko ni autorité yi lañu nyak ñàkkuñu ñi ci des loolu yi tamit rafetul te dama jang lenn ki nga xam moy seytu santé wu mi madame Ndaw ni mu ko waxee di recevoir maladie la ñàkk bopam bu ëllëgee ñi ñëw di pas mom bu ko dara ku fay ne ma jang ci ma Nous leneen te dinaa de fofu ñom alaaji idriss nga yoonu ak ñeneen consigne de sécurité yi ñu lay avion nous, ne la boo ànd sa doom ji nga jur dépressurisation Madame, nu dépressurisation dépression ci avion bi wala am la nga sa doom da ngay masque bi ci sa bopp ba pare soog a xool nooy nous sa hmm mom lañu wara war a comprendre ni bu vaccin yi jotee ñi wara a saytu réew mi te matuñu deux cent ñu ñak leen wané leen pour l'exemplarité bu ñu ko wëlbati ko tawil ko ni dañu jël ñak ñi jox ko ñi nga xamante ni yeyoowuñu ko mbokk yu tedd yi dañoo war a rafet njortu ci suñu biir